auzu billaahi bisimilah inna wal yàlla wa ma tawfiq illa billah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi siyaare waa daayira bi yëpp di jiital siyaar bi sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu wér te lépp lum naa rek suñu borom àggale ko si jàmm si barke borom Touba noonu la ñuy siyaare waa daayira bi yëpp ak waa jëwri ñi nga xamante ne bi ñoom lañ bokkal wàllu waañ wi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax a baax. te xam ne ñoo ngi fii ci waañu nga xamante yàlla seen borom def na ñu dénk ko fii ci liggéey bi nga xamante ne moo jëm ci wàllu waañu ci bis bi nga xamante ne bi sëñ Muntaxa Mbàkke mu baax mi moo ñu ko jox jagleel ko waa Pàkku Lambaay ne bu heure bu ñëwatee na ngeen ci sant yàlla bernde ci jàng ci alxuraan jàng ci xasida bis boobu nag moo tombeek tey jii di la ñu fas yéene ca nekk nii di liggéey di xidma ñu nag ñu dénkoon wàllu waañ wi li jëm ci bernde yi ñu fas yéene cee liggéey ànd ceeg ay jëwriñ ku mel ni sëñ Ndonga Ndiaye ak sëñ Mam booy ak sëñ Sam sëñ Sam ak sëñ Saliou Fall mii ma dendal ak soxna Abidja soxna Assou Ndey Sukay Ndey Assou Ndey Seen ñoom ñëpp ñu ngi ànd ñoom ci liggéey bi ak sëñ Lamine njaay ñoom ak bu limee rek danay juum ànd ak ñëpp si wi ci liggéey bi fas yéenee ànd liggéey bi fas yéenee doxalee ni nga xamante ñoom lañ ko noonu lañ ko bëggee. ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi jox nañu dépasse bi nag ni mu mate jox nañu ko tamit ni ko bëggee ah, fas yéene na leen tamit ta toggal leen ñaar fukki mbana ak juróom yoo xamante ni yëpp ceeb lay doon fas yéene ko bernde taalibe yi ngoon gi tamit am na leen lu fàggu loo xamante ne bii lu demee ne ay mbaxal la ak ay petits yoo xamante ne bii fàggu nañ ko ci ngoon gi ngir lépp bis bi rek ngir maanaam ku ne bernde ku ne sant na bernde te ñun maanaam wàll woowu la ñu féetale kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci fekk gi ñu ko fekkale ren ak fekk gi mu fekk la daaw ñu ngi ne yàlla suñu borom tamit fekkal ñu ko at yi di ñëw di sant bu baax a baax a di gërëm ñëpp te xam ne bis bi lépp lu ci waay def sa bopp nga ko defal ndax bis la bopp ci kaddu ku tedd ki la jógee muy sëñ Mountakha amul intermédiaire amul dara moo ko waxal boppam ne bu ma sañan yéen waa Pàkku Lambaay bu ñu ñëwatee ngeen màggal ko kon képp koo xamante ne yaa ngi Pàkku Lambaay di fi daan sa doole di fi suturlu ñëpp ci la bokk ci liggéey bi nga bokk xajjewuñu ci kenn liggéey bi sëñ Tuubaa nag maanaam boo toogee fi naa dañ ma ko war a wax ak maanaam dañ ma ko war a yëgal yaa ngi perte sëñ Touba moom liggéeyam am na yëgle waaye amul xaare ñun nag alali sëñ Touba lan fépp foo xamante ne bi yëg nga fay liggéey sëñ Touba bu na amee kàttan nañ fa dem ak ñi nga xaay jëru ñi nga xaay ñoo mel man ñi ngi siyaaru baax baax baax sur sëñ ndongo nga xaay moom lan ànd liggéey bi ak li nga xamante moom lan moom la ñu boole ci wàññi sant nañ ñëpp jigéen ñi nga xamante ne soxna yi depuis sept heures ba léegi ñi ngi ci wàññi mënuñoo lim ñëpp waaye wax dëgg yàlla ku ne góor ne jigéen yàlla bañ na ko ba fu mu tudd jigéen ci alxuraan tudd na fa góor fu mu tudd góor tudd na fa jigéen kon mënuñoo dem bàyyi leen kon soxna yi ñu ngi leen sant bu baax baax a baax di jaa di leen jaajëfal di sant bu baax a baax a baax mu mel ni daal affaire wax dëgg yàlla am na tawféexe am na coppite wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ngi koy def ñim seet ni mu waree ak ni mu sell nga xamante ne wàllu liggéey bi ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di siyaar bu baax a baax ah dañ cee lot lool ci wax ji waaye nag comme ni ma ko waxee rek ndigal moom caabi la boppee du ubbi bu yéesee du ubbi moo waral ñu taxaw fii di wax waaye ñun ñoo gën a xeebo ci daayira bi ñoo ci gën a ñàkk solo waaye lépp nag mbiram sëñ bi la rek bu nee la acca moom da ngay daal di jëfe rek kon ñu ngi siyaar bu baax di siyaare suñu jëwriñ mi nga xamante moo wàllu euh, médiation bi di sëñ Ngom nga xamante moom sëñ Tuubaa rek moo ko ñor ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaan yàlla suñu borom liggéeyam gën a jëm ca kanam si barke Seexul Xadim asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi siyaar ñëpp tey jégalu ñëpp comme ni ko jëwriñ Alsaan waxee rek daanaka kàddu yi moom jërta bari la ndax yoonu murit moom ku ne xam ne jëf rek la ñaq la ak ñuq yi ñun nag ñoo ngi sant yàlla bu baax bu ñu yàlla suñu borom boolee ñuy liggéey sëriñ bi ndax ku ne bëgg na ko te mënoo ko am kon nag bu ñu yàlla suñu borom boolee ci mbooloo mi ñuy liggéey sëriñ bi ñoo ngi sant bu baax a baax di sant jëwriñ jib moom nga xam ne moo jiite liggéey bi ak ñu nekk ci waañ bi ñëpp ndax dëgg si yàlla jigéen ñi ay jàmbaar lañu ah xale yu góor tamit ay jàmbaar lañu ku nekk li la war yaa ngi ci kon nag ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan nag bis bii nii yàlla nañ ko fekk ay ati ati ati ati at am koppar yu bëree bëri yu ñu ci mën a def ndax bisam ndigal la te ndigal moom murit moom ndigal amul leen lu gën digal jëfe ndigal moom képp koy def da naa doo ko réccu ñu nag ñoom ci digal li ñu ngi siyaar ñëpp tey jéggulu ñëpp di ñaan Sëriñ Muntaxa Basiru mu yàgg fi jërë ngeen jëf ñu nag ñu ngi ñaanal benn bokku taalibe Ibra Diop jàmbaar la woon bis bi yàlla suñu borom da ko da ko cee boole woon ren dina da ko wuute kon nag ñu ngi ñaan fa mu tëdd yal na ko yàlla suñu borom yërëm yal na ko yàlla jéggal lépp lu mu jëmal sëriñ bi yal na ko fekk fa mu tëdd yal na ko yàlla boole ci yërmande ji asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nii taxawa soxna yi nga xamante ne bii ñoom lañ bokk liggéey bi depuis barki démb ba léegi mën naa ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo ngeen gis image bi nii ñoom lan àndal ci liggéey bi suñu borom def ñu ànd jiitu ci liggéey bi yoonu murit nag moo demee noonu mbir moo gis am na ñu koy jiite mu nekk soxna yi nga xamante ne bii ah ñoom ñoo nekk ci waañ ñoo nekk ci image bi kon xam naa dañuy jox ku mel ni soxna abija mu saanu ci ay kaddu pare jox na soxna Ndeye Soukey mu saanu ci kaddu ak ñoom ñi nga xamante ñoo nekk ci image bi ba léegi ñu ànd ak ñoom si liggéey bi i place tëj seen i kër tëj lépp loo xamante ne moom loon yor ànd ak ñun ci liggéey bi saa buñ gestoo gis leen a rek mu sànnu ci ay kaddu asalaamaaleykum suñu waa mbootaayu pàkku Lambaay ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare ñun daal def ñu dul sant rek di sant sëñ Tuubaa di sant sëñ Muntaxa Basiru yàlla na fi yàgg te wér di sant waa waañ yi di sant seen alkaankan mii nga xam ne moom lañu yàlla booleel mu nekk suñu jëwriñ bu góor ndaxte saa yu nekk luñ ko wax rek du ci teg baat kon nag dañuy sant rek di sant suñ doom yi nag may sant ndey su koy mii bu baax a baax a baax a baax ndaxte cër bi ma joxoon teggi ko benn yoon kon nag dañuy sant di sant soxna Asumi nday Asumi nga xamante ni bi tamit ci doom yi la bokk ak nday seen mii ñun daal waañ wi amuñu ci dara luñ naqaari ñun daal dañuy ñaan yal nañ gën a yal nañ ko gën a mën rek ci barke borom bis bi ndax sëñ bi daal lim ñu defal dafa rëy waa Paaku Lambaay ñoom moom lii loolu sant la kon nag luñ ci def rek doyut luñ ci def rek doyut ñu ngi ñaan yàlla daal nii ñu ko tàmbalee bu déwénee yal nañ man lu ko raw te dañuy mën lu ko raw sax waaw waaw maa ngi jégalu bu baax. waaw xam naa kon dégg ngeen kàddu yooyu soxna bi. jooyal ci wàllu waañ wi ah di sant bu baax moom it dana am ak bu baax a baax ci moom ndax lépp koo xamante ne muy café tey ci waañ moom moo ko jaayante ak mayonnaise bi lépp lu ci war de moom moo ko jaayante ci yàlla ak jëmmam ci ak bis bi du benn yoon boobu rek la ko def nag ndax ñun moom ànd nañu moom ay yoon yoon ci safara yi lépp lu mën di doon boo demee këram day jaayante loo xamante ne bii dangay ngay mujj sax rus waaye lépp ñu ngi koy kalaamee ak sëñ Tuubaa nga xamante ne moo jar liggéeyal kon xam naa dañuy jox soxna Ndey sukkay moom tey mu sànnu ci ay kàddu aousu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa inni aousuha bika wa zuriyataha mina seytaan rajim rabbi aousu bika min hamazati zayatin wa aousu bika an yaqduruni allah wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki julli di mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax a di leen jox seen wàccuwaay di am contentement bu baax nag ci bis bisu sëñ Mountakha bi nga xamante ne moom la ñu jagleel ñun waa Pàkku Lambaay ñu xam ne nag li ñu li ñu am jar naa sol ay dàlli weñ di ko wëri comme nag jar naa sol ay dàlli weñ di ko wëri te ñun yàlla def ñu am ko mu nekk bis boo xam ne dañ kaa war a fonk war koo faale war koo yitteel mu nekk bis boo xam ne bu ñëwee suñu yitte yëpp dañ koo war a dagg nekk ci bis bi taxaw ci bis bi ba bis bi jeex ndax amuñu fu lu jëf sëñ Touba ak maam suñu yëngoog suñu dal lépp ñun sëñ Ibra lañ koy jox fii ñu ngi jiital jël suñu carte di ko jox Assane Ka ndax Assane moom góor la waaye góor la goo xamante ne neex naa àndal Alsaan du weranteeg ñun ci liggéey du def dara loo ko ne Alsaan baax na mu loolu baax na ay at nag xale ba tey ñun ak moom mosuñu cee gis lu ñu naqari wanuñu si gee dara te loolu dañ ko ci sant ndax jamono ji yëngu yi yëngu-yëngu yi yi fi mu toll ku lay jëmale ci yoonu sëñ Touba war nga koo sant ndax ndaw yaa ngi fi nekk ci leneen te Alsaan heure boo déggee appelam ci sa téléphone mën na maa wat ci sëñ Touba ne programme sëñ Touba la ak Baye Jib Diouf kon loolu ñu ngi leen koy sant di leen ko gërëme di sant nag waa waañ bi yëpp te xam ne mooy doole kenn mënut lenn te ñun niiw am nañ ñun ci àndal xañ na nag yàlla moo def ñun ñu njiitu ca kaw mais nag loolu tamit ko rëyee duñ ko fëggee suñu dañu duñ ko ndamoo tànneef suñu borom la ndax tak sëñ Tuubaa tànn muy jiital ci ay mbiram ba tax na ñu ngi ciy suufee chaque jour di sant ñëpp nag képp ku nekk si Pàkku Lambaay rek ñun soxnaay Pàkku Lambaay ngi jiital ci tur yëpp di leen sant sant it soxna Asu Ngom soxna Asu nekk waañ bi mi ngi nekk ci tuusi mais moom tamit guddeeg ñu ko woote dañ koy gis suñu kanam ay at kon loolu tamit ñi ngi ñaan yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa na taxawaay bi bi yàgg ci barke Serigne Sali barke Serigne Abdou Karim barke Cheikh Mourtada kaddu yi rafet na macha allah kaddu yi positif la tamit kaddu yi positif la waaye lépp tamit yéen la rek ndax képp koo ci xamante woowoon nga ko ci yoonu sëñ bi moo ne la du ma ñëw wala nga woo ko ñaari yoon mu lay ñàkk gerte du doo ko woo waaye comme ni mu ko waxee rek waxtu mu ne laa leen woo te wax di yàlla doon nekk seeni i borom kër waaye lépp loo xam ne jëm na ci yoonu sëñ bi muy fii muy Masalik saa bu ne leen jóg leen dañuy jóg kon maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm kon xam naa kon dañuy jox suñu rakk ji ñu dendal muy soxna Ndey Seen moom tamit xam naa day si sànni ay kaddu rek waaw bu paree jox soxna Ndey Seen ndax dañoo war a dem ci liggéey salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp suñu jëwriñ ñi suñu yaay yi ñëpp maa leen nuyu di leen ziar di nuyu waa pàkk bi ñëpp di leen wax nag yokk ak yéeg ci barke borom Touba. lii ñu commencé depuis daaw ba ren jii ñu commencé ko mun naa ne sax commencé nañ ko bu yàgg a yàgg waaye daaw ak ren première rajab bi nga xam ne moom la ñuy def chaque année maa ngi ñaan ci doole Cheikhul Khadim bu déwén ne yàlla na nekk ay téeméeri mbana ci doole Cheikhul Khadim leen ñaanal yàlla yonent beeg Serigne Touba loo leen mën ren bu déwén ne yàlla ngeen ko mën ñun tamit jigéen ñi luñ mën ren ci ndugg meeg waañ weeg lépp bu déwén ne yàlla nañ ko mën bay ànd ak suñuy doom ànd ak suñuy rakk-rakkaat ñun ñëpp ñëw di ko liggéey ci doole Cheikhul Khadim maa ngi leen leen ziar leen jox seen waaj wàccuwaay yéen ñëpp. waaw jërëjëf soxna na Ndeye Sène kàddu yu rafet na macha allah moom it gone la ko wax dëgg yàlla depuis mu ànd yaayam doon tuut tànk ñu nekk ak moom ci waañ wi musa daw. ba fii mu yàlla suñu borom jox ko ci waa pàkk bi suñu borom di ko denc mu koy denc waaye saa bu ko soxlaa moom it yaakaar naa dëkk ba la jóge ngir bis bi loolu tamit dañ koy seere ak moom ndax man yàgg na ma ànd ak moom mu dekk tout tànk waaye musta daw ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi xam naa kon dañuy jox soxna Ndeyaasu moom tamit musta duñ ci ay kàddu ñu tëj eh, kii bi bisimilah. bisimilah onze billahi mina seytaana rajim bisimilahi rahmaani rahim barke Serigne Saliou barke Serigne Saliou barke Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane maa ngi leen di ziare bi am kontaan ak mbégte ci liggéey bi nga xamante ni mooy liggéey bi ñuy liggéey Serigne Touba nax lépp ci yoon Serigne Touba bi la ñu ngi sant bu baax a baax baax di sant suñu jëwriñ ji Alsaan ndax wax dëgg yàlla jàmbaar la nag wax dëgg yàlla jàmbaar la Euh, liggéey bi chaque jour day jiituñu ñu topp ci ginnaawam lépp lu luñ ko wax rek loolu lay def ñi ngi sant ñëpp man moom mënu wax waaye maa ngi sant ñëpp di sant waa pàkk bi di ñaan yàlla bu mu doon seen mujj mujjantalu ndaje yàlla nañ koy daje ay ati ati ati at ndigal li tamit yàlla nañ koy def ay ati at ñu dund bay taal ay téeméeri mën a ci barke Serigne Saliou yàlla defal ñu fi jàmm defal ñu weer defal ñu weer defal ñu xéwal ñu liggéey la Serigne Touba ndax ñun dara ñoruñu lu du Serigne Touba Serigne Touba rek a ñu ñor bu sëñ Touba wootee lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi dañuy tëj place yi bàyyi njaboot gi bàyyi lépp liggéeyal li sëriñ ndax moom rek moo fi da liggéeyal sëriñ Touba yaakaar nga ko kon dañuy sant yàlla bu baax di sant sëriñ Touba di liggéeyloo ci barke Cheikhul di sant ñëpp di sant sama waa mbokk Lambaay yëpp di sant nag mënuma sant ñëpp da sant ma sant sama maam yi Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ndax lépp moom la tey ji su ma taxawee bay liggéeyal sëriñ Touba la ndax macha allah yal na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ci barke Serigne Saliou yàlla yokk suñu fan yi yàggal ànd bi ak sunu yaay ji nga xamante ni moom lañ àndal mi temps maam abi macha jàmbaar la saa buñ ko wootee ci liggéey bi Sëñ Tuubaa lu mu jàppoon da koy bàyyi koo ci gis ku nekk day kafa yow day reetaan ak yow day wax ak yow ñi mooy mag de mais dafa ñëw ko defal li li wax moom loolu lay def ak oye fam la ak ak baaxam ñi ngi ñaanal yal na yàlla wéral cër yi ak njaboot gi ci barke Sëriñ Saali da na ci yàlla def barke def ci jàmba lépp luñ ci bëgg rek suñu borom defal ngeen kàddu yooyu waañ wi ñoo ngi leen di bu baax a baax di siyaare sama tamit jëwriñ joo xam ne ma ko fàtte woon ci lim bi muy sëñ Pape Diouf moom it dañoo ànd ci liggéey bi ànd ak moom ci liggéey bi ñi ngi sant ñëpp comme noonu ngeen ko gisee image yi rek noon la demee soxna yi nga xamante ñoom la àndal ci waañ wi ñi nga xamante ne bii ñoo jiitu ci waañ wi ànd ak soxna yi nga xamante ñoo ne ci pàkku làmbaay bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal wax dëgg yàlla ñoom it kenn du ñoom saa buñ gestu dañ leen di gis muy góor muy jigéen kon ñi ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ci suñu borom defal ñu taw féex fekkal ñu kat yu bëree bëri si barke Seexul Xadim kontaan nañ bu baax a baax a baax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan lépp loo xamante ne liggéey nañ ko fi rek yàlla suñu bu defal ñu ko di siyaar sox sëñ ji bu baax a baax a baax di ko ñaanal moom tamit lépp moom la wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kon sëñ Ngom kàddu xam naa dañ ko foofu rek ñu lay siyaar bu baax tamit yow di الرحمن من الأسيان فالليل من له حيثهم ما لدى فجندهم مصوم رفع أهل بدر الإسلام وزرزر الفجار محمد هدية لا الودود سمدي أفت حياتي بالنبي محمد هدية لا الودود سمدي أفت حياتي بالنبي محمد هدية لا الودود سمدي أفت حياتي بالنبي محمد